yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaar fukkeelu njàngale mi ak juróom yàlla tànn na daawuda mu wutu sol nanu bamtu nettali yi weesu benn naka la yàlla àttee aadama ak awa bi ñu lekkee doomu garab gi ñu tere yàlla génne na leen toolu àjjana kon teqalikoo nañu ak yàlla te gannaaw gi dee nañu ñaar ci jamono noyin naka la yàlla àttee nit ñi ndax seeni bàkkaar yàlla daan na leen ci am mbënn ñett ci jamono njiit yi naka la yàlla àttee waa Israël bi ñu ko toppul yàlla bàyyi na yeneen xeet daan leen yàlla wacc na waa Israyil ndaxte ñoo ko wàcc yàlla àtt na leen ngi ñu fàttaliku te dellu ci moom ñeent lu tax yàlla atte sool ndaxte sool deful li ko yàlla wax juróom naka la yàlla daane sool bi mu deful li mu ko sant yàlla folli na ko bi mu deful li mu ko sant juróom benn bi waa Israël bàkkaare lan lañu def ngir faxas seeni bàkkaar dañu tuub te def saraxe bi yàlla santaane juróom kan moo mën a dugg ci bërëb bu sell ba sell ba ci mbaaru màggalukaay ba sëriñ bu mag bi rek juróom-ñett lan la sëriñ bu mag bi di yóbbaale ci biir mbaaru màggalukaay bi ngir taxaw ci kanamu yàlla am mala mu amul sikk ngir tuur deret ji muy sarax mbind mu sell mi nee na ci benn samuel saar fukk ak juróom ñaar aaya ñeent ba aaya juróom benn aaya fanweer ak ñaar ak aaya fanweer ak ñett aaya fanweer ak juróom ñaar aaya ñeent fukk benn aaya ñeent fukk ak ba aaya ñeent fukk ak juróom benn aaya ñeent fukk ak juróom ñett benn noonu góor génne ca delub waa filisti te mu ñëw ci diggante ñaari xare yi mu ngi tudd góor yaat te dëkk gàtt taxawaay ba tollu ci juróom benni xasab ak genn wàll mu sol mbaxanam xànjar takk kiiraay lu def ay waasintóor yu xanjar te diisaay ba tollu ci juróom benn fukki kilo mu ngi soloon ca tànk ya ay kiiraay yi yeel yu xànjar te gàddu xeej bu xànjar bi loolu amee daawuda ne sol bu kenn yoqi ndax waaye filisti ji man sa jaam dinaa xeex ak moom sóol ne daawuda mënoo xeex ak waaye filisti jooju ndaxte xale nga te moom ñeyu xare la dalee cig ndawam daawuda dellu ne aji sax ji ma xettali ci wewu gaynde ak tànk urs dina ma xettali it ci loxob waaye filisti ji noonu sool ne daawuda demal te na aji sax ji ànd ak yow waaye filisi ji di gën a jegeñ ci wuti daawuda te ki gàddu pakkam jiitu fi kanamam mu teg ca ne ak sir fi man te dinaa jox sab néew ci asamaan ak rabi àll yi daawuda ne waaye filisi ja yaa ngi dox jëm ci man ak jaasi ak xeej ak fit te man maa ngi jëm ci yow ci turu aji sax ji man lépp yàllay xarey israyil ji nga saaga tey ji aji sax ji dina ma la jébbal dinaa la tër dagg sa bopp tey ji dinaa jox néewi delu bu waa filisti ci asamaan ak rabi suuf tey suuf sépp dina xam ne israyil am na yàlla ca saasa waaye filisti ji daldi riir ngir jaar ca kanam daawuda waaye daawuda daw ba ci jati ja ngir daje fa ak waayi filisti ja mu dugal loxo ba ci mboxosam jël ca aw xeer te mu sànni ko ak mbaqam mu dal waayi filisti ji ca jëba te xeer wa nuur ca biir jëbu waa filisti ji mu ne nërëm dëpp kanam gi ci suuf bi mu ko defee mu daw taxaw ca wetu waayi filisti ji jël jaaseem boccee ko ci mbaram rey ko te dagg bopp ba waa filisti gis ne seen jàmbaar dee na ñu daldi daw bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla tànn na daawuda mu wutu sool nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla tànnee daawuda mu wutu sool léegi yàlla ne samwil bul am nakar ndax sool keneen dina ko wutu yàlla tànnoon na benn doom isayi ci betleyem ngir mu falu buur noonu samwil dem betleyem bi samwil gisee taaw isayi mu xalaat ne moo war a falu buur waaye yàlla ne samwil bul xool jëmm ji ndaxte du moom laa tànn borom bi du xool li nit ñi di xool nit ñi ñu ngi xool jëmm waaye borom bi moom mu ngi xool xool yi juróom-ñaari doomu Isayi jaar ci kanamu Samwil waaye yàlla tànn ci kenn noonu ñu woowu caat ma doon sàmm xar yi bi mu agsee borom bi ni Samwil moom laa fal noonu Samwil jël béjjén bi sotti diw gi ci boppu Daawuda ci teewaayu ay magam xelum yàlla solu ko léegi xelum yàlla wàcc na sol xel mu bon dugg ko ay nit xelal ko mu woo daawuda sàmm bi ngir mu koy xalamal bu nekkee ci naqar noonu daawuda di dem ci kër buur sol ngir xalamal ko saa yu nekkee ci naqar teewul ba tey muy sàmm xari baayam benn bés daawuda ngi nekkoon ci kër baayam baayam yónni ko ci ay magam ngir mu yóbbul leen lekk fa ñu doon xare ak waa filisti bi mu agsee ci xarekat yi mu gis am ponkol mu njool ba tollook ñetti meetar ci waa filisti ponkol mi Goliyaat la tudd Goliyaat a ngi soloon mbubu weñ ak mbaxanam weñ boobu Goliyaat mu ngi tëkku waa Israyil lu tolloog ñeent fukki fan ngir ñu yónni kenn mu xeex ak moom waa Israyil dañu ragaloon Goliyaat waaye Daawuda ne kan mooy waa filisti ji te ku xarekati yàlla borom dund gi Daawuda ne sol man dinaa dem xeex ak moom sol ne ko yow xale nga waaye Daawuda tontu ko ne yàlla aaroon na ko bi muy xeex ak ay gaynde ngir wattu ay juróom yàlla dina ko aar tey ci Goliat noonu Daawuda jëm ci Goliat ak mbaqam ak juróomi xeer bi Goliat gisee Daawuda dafa daal di ree waaye Daawuda ne ko yow ñëw nga ak sa jaasi ak say xeej waaye man ñëw naa ci turu yàlla aji kàttan gi xeex bi xeexu yàlla la dinaa la daan Daawuda daw wutuli Goliat mbax ko wenn xeer ci jë Goliat daal di daanu ci suuf Daawuda jël jaasi Goliat dagg bopp bi bi waa filisti yi gisee loolu ñu daw waaye waa israel daq leen rey ci ñu bare ganaaw loolu buur sool yóbbu daawuda yerusalem fal ko njiitu xare katam yi waaye nit ñi sopp daawuda lool ba sol am ci kañan sool di fexe nu mu ko reyee benn bés daawuda doon xalam sol sànni ko ab xeej daawuda moytu xeej bi daldi daw dem ci àll bi noonu ay nit fekki daawuda ci àll bi ngir doon ay xarekatam ñu teg ci tuuti yonent yàlla samuel dee ay yoon yu bare sool ak ay xarekatam rëbb nañu daawuda waaye yàlla di ko aar ganaaw loolu waa filisti yi defaruwaat ngir songaat waa israyil sool daldi tiit laaj yàlla lan lay def waaye yàlla bañ ko tontu noonu sool dem ci ab xërëmkat sol wax ko mu woo xelu dem ci yàlla samwil ngir mu wax ko lan la war a def bi samwil feeñoo xërëmkat ba dafa tiit bi ñu laajee samwil mu tontu sol ne ko yàlla nangu na sa nguur ndaxte déggaloo ko léegi yàlla jox na nguur gi daawuda te suba yow ak say doom yu góor waa filisti yi dinañu leen rey ca ëllëg sa li samwil waxoon am sol ak ñetti doomam ya dee ca xare ba ñu teg ci tuuti daawuda falu buur israel yàlla barkeel daawuda mu daan noonam yépp turam daldi siiw daawuda indi gaalu kóllëre ga ci yerusalem def ko ci biir mbaaru màggalukaay ba daawuda bëggoon na tabaxal yàlla kër waaye yàlla ne ko mu xaar doomam dina ko def daawuda ku gëmoon yàlla la waaye benn yoon daawuda njaaloon na ak jenn jigéen ju ñuy wax batseba daawuda dafa sant jëkkëru jigéen ja mu jiitu ca xare ba ndax bëgg mu dee ganaaw bi jëkkëru batseba deewee daawuda jël batseba jabar yàlla def doom ja batseba jëkk jur dee ndax bàkkaaru daawuda gannaaw gi batseba amaat doom ju góor ñu tuddee ko suleymaan Daawuda doon na bàkkaar waaye saa yu bàkkaaree tuub yàlla jégal ko bind na ay saboor yu bare ci mbirum mbëggeelu yàlla ak mbaaxam Daawuda bind na saboor yi bokk ci mbind mu sell mi yàlla digg na Daawuda li mu digoon Aadama ak gannaaw gi Ibrahima ne kenn ci askanam dina ñëw te dina daan seytaane dina doon kiy musal nit ñi Daawuda bind na ci saboor saar juróom fukk ak ñett aaye ñaar ak aaye ñett yàlla ci kaw asamaan xool doomi aadama yi ngir gis ndax am na ci kenn ku xam tey wut yàlla ñoom ñépp jàdd nañu ñoom ñépp yàqu nañu amul kenn kuy def lu baax du sax kenn fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn lu tax yàlla fal daawuda buur yàlla xamoon na xolu daawuda ñaar lu xew bi samwil diwee bopp daawuda xelum borom bi wàcc na ci moom ñett lu tax daawuda dem kër buur bi sool ngir xalamal ko ndaxte xelum yàlla waccoon na sool seytaane dugg ko daawuda doon na xalam ngir giifal xolu sool saa yu ko seytaane duggee ñeent lan la daawuda reyee goliyat doj ak mbaq la reyee goliyat juróom ndax yàlla dimbali na daawuda waaw juróom benn lu tax sool bëggoon a rey daawuda sool dafa añaanoon juróom ñaar lu tax yàlla bañ a tontu sool ndaxte sool déggalul yàlla loolu moo tax kóllëreem ak yàlla jeex. juróom ndax xalaat ngeen ne yàlla meroon na bi sool waxee xërëmkat bi mu delloo ci xelum samwil waaw lu tax ndaxte yàlla bëggul nit ñi di dem ci ay xaramkat wala ay jabar yàlla bëgg na képp ku am soxla ñëw ci moom ndigal lu jëkk li nee na bul am yeneen yàlla judul man su ngeen demee ci ab xaramkat wala ab jabar seen kóolute ci yàlla matul juróom ñeent ndax samwil amoon na doole yàq li yàlla tëral déedéet lu tax ndaxte Samuel doomu Adama dong la xam-xamam ngi jóge ci yàlla yàlla moo ëpp doole rab yi yàlla rekk am doole fukk ndax Daawuda daan na bàkkaar waaw fuk ak benn luta tax yàlla barkeel daawuda ndaxte daan tub tuub ay bàkkaaram yàlla baal ko fukk ak ñaar lan la yàlla dig daawuda yàlla digg na ko ne ab musalkat dina wàcc ci askanam te dina daan seytaane te indi jàmmoo ak yàlla yan melokaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla dafa jub yàlla du atte ci jëmm xol lay atte yàlla dimbali na daawuda mu daan goliyat yàlla aar na daawuda bi ko sool doon wuta rey yàlla bëggul bàkkaar xelum yàlla wàcc na sool seytaane dugg ko yàlla bañ na tontu sool gannaaw bi sool bàkkaare gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla barkeel na daawuda ak waa israyel yépp ñu daan seeni noon israyel doon réew mu am doole yàlla lu mu digge def ko yàlla dig na aadama ak ibrahima teg ca daawuda ne leen ab musalkat dina wàccee ci seen askan te dina daan seytaane yàlla kenn la amul moroom yàlla meroon na bi sool waxee xaramkat bi mu delloo ci xelu samwil yàlla bëggul ñuy doole feneen yàlla dafa bëgg ñuy wéeru ci moom rek beneen yoon dinañ waxtaan ci ni yàlla maye suleymaan xam-xam